الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم asalaamualeykum wa rahmatullah seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré Cœur 3 VDN moo del si tey jeudi 19 novembre 2020 di waxtaan ak yéen bu nekk sunu audio numéro 175 ci sunu jotaay bi passé ñu ngi yemoon ci aaya 35 bu suratul maida boroom bi di ñu ci wax ne nañu ut pexe nañ ut moyen bu ñu ko jegee borom bi nee na ñun jullit nee ñu ut pexe bu ñu ko jegee mbokk yi mu nekk loo xam ne lu jar a sant yàlla la li ñu war a njëkk a def ci kàddu borom bi mbokk yi mooy ñu ñu sant ko ñu sant ko moom borom bi bam ñu mayee chance

pour jéem am li nga mun ci jege borom bi jege borom bi allah subhanahu wa taala ñëpp la ko borom bi allah subhanahu wa taala jagleel du ay doomu nit doomu aadama kese ñoo xam ne ñu rek lañ ko jaglal dedet nit ñii rek lañ jagleel jege yàlla yeneen jullit yi bokkuñ ci yaa ayyuhal na amanu képp koo xam ne gëm nga yàlla bépp jullit su la soxalee su la jege yàlla soxalee am nga chance pour jege borom bi allah subhanahu te ma ne jullit bu nekk nag jullit bu nekk jullit xaqan jullit bu nekk war nga defee yitte noo jege borom bi allah subhanahu chance la bu ñu may mbokk yi nañ leen def suñu kéem kàttan pour saisir chance boobu pour ngëb ko du du ay doomu aadama yu ñu ko jagleel dong rek de déedéet bépp jullit mun nga jege borom bi allah subhanahu wa taala borom bi daf ñu ne ci alxuraan bëri na li koy wax ci alxuraan ne nañu gëm ak pastef kon dañu war a am yaqin ne suñu tegoo ci yoon wu jub bi nga xam ne moom rëddal nañu ko ci anam bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañu ñu ko jàngalee dinañ am chance mbokk yi ak ndimbalu borom bi jege ko moom mbokk yi borom bi allah subhanahu wa ne daf dafas, dafa dafa sàkk doomu aadama yi ak jinne yi lu mooy pour ñu jaamu ko dong loolu dong jaamu ko dong moo tax borom bi sàkk ñu ñun ak jinne yi kon jege borom bi mënuñ ko amee lu mooy ci jaamu yàlla jege allah subhanahu wa taala mënuñ ko amee lu mooy ci jaamu yàlla jaamu ko moom ni mu ko bëggee maanaam ci anam bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ne ginnaaw ñaari baatu seede yi yi nga xam ne suñu laloo ba pare am na ñeenti ponk yooy xam ne ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne ci la jullit bi war a jaamoo yàlla muy yan ponk muy julli génne asaka soo ko munee or weeru ramadaan su la ko su la su la yaram mayee aji màkka su la ko sa moyen mais mbokk yi yii mooy ponk yi nga xam ne moo ñuy def jullit yii mooy ponk lislaam képp ku leen jëfe jullit nga képp ku leen bax génn nga ci lislaam képp ku yem ci ginnaaw ba nga defee ñaari baatu seede yi yem ci julli yem ci génne asaka or ramadan aji màkka fekk que mën nga leen nga yem ci loolu dong bàyyi tere yi rawatina bakkaaru kabayir yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam na ku def lii amaana borom bi dugal la àjjana loolu la tontu woon saaba ba ko ko laajoon ku ci yem ci ponk yi ci farata yi ku bàkkaar yu bon yi yu mag yi ba baleen yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na amaana borom bi dugal la àjjana ci kaw loolu dong dama wax dong rek waaye waxin la ku yem ci ponk yi ku yem ci farata yi mun na la yóbbu àjjana wante doyul pour nga jege borom bi yem ci farata yi doyul pour mun a jege allah subhanahu wa pour am yaakaar jege borom bi allah subhanahu wa taala jullit bi foog mu yokk ay jaamu yàlla jullit bi du yem ci farata yi jullit yi jullit bi il faut muy def ay ay nawaafil il faut mu def ay naafila ay pra ay pratiques surérogatoires maanaam ay ndollent foog nga jaar ci loolu xeetu naafila yi bare nañ dinañ ci delluwaat dinañ ci dellusi si sa kaname ni say naafila di gënee bare ngay gën a jege borom bi allah subhanahu wa ni ngay gën di naafila yaa ngi gën a jege borom bi allah subhanahu wa yaa ngi gën a jege bi allah subhanahu wa taala ba ba mu lay bëgg nag ba ba mu lay bëgg faf te mbokk yi borom bi allah subhanahu wa ku mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ko nettali na ko ci benn hadis bu siiw nee na nee na allah subhanahu wa ku mu bëgg dafay oo jibril ne ko man diw bëgg naa ko ma ngi lay jox ndigal yow jibril nga bëgg ko te nga wax malaaka yi ñoom itamit nañ ko bëgg te nga yebal malaaka yi ci kaw suuf ñu ñu ñu def ci xolu doomu aadama yi ñu bëgg ñu bëgg ko moom moom itamit kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem ci hadis bu wér nee na ku yàlla bëgg jibril daf lay bëgg malaaka malaaka yi bëgg la doomu aadama yi bëgg la te loolu naafil moo ko mën a mayee naafi la maanaam di yokk say jaamu yàlla ba nga defee farata yi ba pare ngay nga ngay yokk nag léegi nga def ay ndollent loolu moo ñu mun a may ñu jege yàlla loolu moo ñu mun a may allah bëgg ñu yàlla ñu yàlla bëgg mbokk yi amiin yonent bi sallallahu bàyyi na fi nag ay naafila yi ma doon wax sànq bàyyi na fi ay naafila naafila yooyu suñ ko jëfee mbokk yi amaana suñu ñaan nangu naafile yi wax nañ sànq ne dañ bëri xeet ñu lim li ñu fi boro li ñu fi yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam jàng bàyyal ci njàngaleem te suñ leen toppee mën nañ jege borom bi yonent bi bàyyil nañu fi jàng alxuraan benn ñaar yonent bi bàyyil nañu fi bàyyil nañu fa ay rakkaat bàyyil nañu fa ay ay naafila su julli waxtu yi juróom yi paase am na ay naafi la julli yu ñu fi bàyyil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñett bàyyil nañu fi ay askaar ay zikr ay xeetu tudd yàlla bàyyil nañu ko fi ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyil nañu fi ay ooru la ginnaaw oor ramadan jàllee am na ay ooru ooru ngàtt nga bu ñu koy waxee ñu fi bàyyil muy ñeent juróom yonent bi tamit bàyyil nañu fi tamit jikko yu rafet waa waa mbokk yi jikko jikko yu rafet <laughs> jikko yu rafet ëpp naa ëpp naa bañ a lim ëpp naa bañ a lim ci yi nga xam ne ku ko ku ko ku ko topp di nga jege borom bi jikko yu rafet ci la bokk mbokk yi jikko yu rafet ci la bokk ëpp naa bañ a lim ëpp naa bañ a bañ a Euh, bañ a intégré ëpp naa def jàng alxuraan naafila julli zikr naafila koor defar sa jikko ba mu rafet li mbokk yi su ñu ko saxoo amaana dinañ jege borom bi allah subhanahu wa taala yii ma lim moom lañu ñu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeel nekk ay ndollent yoo xam ne ci lañu mën a jaar pour jege borom bi allah subhanahu wa taala naafile yi incha allah bu ci nekk dinañ ko jagleel audio bu ci nekk dinañ ko jagleel auto audio yaatal ko wax ci li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fan yi ñu dëgmal incha allah loolu mooy doon sunu liggéey subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim